li xew ci réew mi nag wax dëgg yàlla nit ñëpp war nañ ci bàyyi xel parce que dafa am loo xamante ne dafa am avant élection war nañu tiit ci loole te war nañ ci xalaat bu baax a baax bu fekkente ne ñii dañu ne dañoo ger ñenn ci waa conseil constitutionnel waa conseil constitutionnel ne kenn geru leen muy problème ñeneen ñi ne dafa am ñoo xamante ne waroon nañu nekk candidat waroon nañu jàll waroon nañu valider seen candidature te valider wuñu seen candidature am ñoo xamante ne dañoo valider seen candidature ba pare ñu doog a rendre compte ne y problème ku mel ne euh, Rose Wardini di candidate boo xamante ne dafa jàlloon ba pare ñu doog a rendre compte ne effectivement y problème donc loolu yëpp bu xewee coow li commencé ne court avant élection cela veut dire que même bu ñu demee élection coow li day continuer coow loo xamante ne poste électoral lay doon après élection te loolu wax dëgg yàlla soxla wuñ ko ci suñu réew dañ bëgg ñoŋal lépp avant que ñuy dem élection parce que nag président Macky moom la ñu jiital moom la peuple sénégalais jox réew mi bu rendee compte ne am na loo xam ne c'est des irrégularités am na loo xam ne doxul am na loo xamante ne fi mu jëm baaxul il faudrait que mu siffler la fin de la récréation reporté wul benn élection te ci li mu nekkoon démb bañ a def beneen mandat ci la nekk ba léegi moom li mu mën a def mooy abroger décret bi nga xamante ne moo woowoon li nga xamante ne mooy euh, collège électoral le scrutin moom moo bindoon bataaxal bind décret woote pour que élection mën a am bu demee nag ba rendre compte ne effectivement y a problème day jëlaat beneen décret abrogé li nga xamante ne mooy décret bi mu defoon donc loolu moo fi am loolu nag wax dëgg yàlla gisuñu ci lu dul nit koo xamante ne ku jara félicité la parce que suñu réew dafa am nit ñu xamee jàmm ak salaam président Macky Sall nag bi mu ñëwee ba léegi ci bopp réew mi bankul loxoom da ko tàllal ñépp pour ñu dialoguer pour que ñun dem ci ay concertation concertation nag dialogue nag nekkul rek dialogue national mais commencé na fi wala def na fi ay dialogue yu bëree bëri damay xalaat dialogue bu mel ne concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur ak yeneen secteur yu bëree bari président dajale na acteur yépp ñu bokk taabal ji waxtaan ngir li jëmale suñu réew kanam am na loo xamante ne tamit wax dëgg yàlla opposants yi ñoo ko wax ku mel ne le premier ministre Abdoul Mbaye dafa ne le fait que déjà ñu abroger le décret convoquant le corps électoral loolu lu baax la pour que ñu mën a dem dialogue waxtaanee réew mi ñu bokkul woon mën a bokk ñi nga xamante ne demoon nañ ba valiser seen candidature te waruñoo bokk ñu bañ a bokk ñun ñëpp ñu ànd waxtaane réew mi loolu je pense que ñun ñi nga xamante ne euh, ñoo fi nekkal président de la république politiquement parlant dañ ko ci jàppale lépp lu mu sumb xam nañ ne lu baax ci réew mi la parce que nag wax dëgg yàlla président de la république euh, lebalul sénégalais yi lu dul lu baax réew mii boo gisee xam ne li fi jot a am ci liggéey les réalisations que le président de la république a faites dans ce pays kenn du ko miim personne donc leneen li aussi président dafa bëgg dem dem boo xamante ne dana wàcc ci ginnaawam jàmm ju mot sëkk jàmm ju doy sëkk looloo tax nag ñu taxaw tey ne ñëpp nañu wuyu ji dialogue ba ñu waxtaanee réew mi fexe jàpp ay élection euh, ci beneen date boo xamante ne ñëpp a ciy déglu parce que nag loi nekkul lenn lu dul lu nit ñi déggoo donc ñoo woo ndaw ñëpp ñu laxasaayu euh, nekk ci ginnaaw président de la république servir ko de bouclier jàppale ko bu baax servir que de ceinture de feu et de sécurité pour que mu mën a eggali ci jàmm ci liggéey bi nga xamante ne su mënoo ko ci mim réew mais également mu bën a mën a bàyyi réew mi ci jàmm ak salaam donc lii daal moo nekkoon li ma bëggoon a wax ci ci kàllaamay Kocc di jox kàddu gi si samay ñoñ ñi fi nekk pour que ñu complété ma par rapport à ce que je viens de dire j'ai à ma droite alors man li ma si yokk du bëri coordonnateur ndaxte jàpp naa leen li gënoon am solo wax nga ko li ñu ñëw pour wax rek mooy d'abord ndaw yi réew mi bu leen kenn dugal si loo xamante ne mooy indi déstabiliser sunu réew réew mi kenn gënu koo bëgg son excellence le président Macky ndaxte nag li mu fi def daf ne weng nit ñi gis ko teg si bët ñuy waxaat ne démocratie chaque fois day am loo xamante ne moo siy xew moo koy gën a dëgëral si démocratie yu mag yi si fi may njëkkee fu ñu waxee ñu ngi jéem a nëxal xel yi Sénégalais yi dina di wax ne li Macky Sall def fi mosta am maanaam élection kenn mosu ko repousser élection présidentielle si pourtant élection sous Senghor yi nga xamante ne waroon nañu am Senghor a fait adopter une loi une révision constitutionnelle en décembre 67 pour élection yi waroon a am en 67 am en 68 en février 68 donc loolu am na Sénégal kon bu ñu nee élection présidentielle kenn mosu ko pousse Sénégal mos nañu ko pousse te pousse bi ñu ko pousse nii bële Senghor moo jëloon initiative bi bii nii c'est un groupe parlementaire de l'opposition qui a pris l'initiative comme ñu repousser élection yi parce que si lañ yaakaar nañ ne si la jàmm réew mi di mën a am beneen bi tey ji du ñuy wax démocratie ñu ngi jël exemple si ay ay démocratie am doole ñu wax États-Unis mais États-Unis sous Nixon élection am na fa ñu accuser ay accusé de corruption ñu reprendre élection ya maanaam Nixon démissionné ñu reprendre élection ya mais est-ce que di dem bay ba ñuy fal président ba pare naan ko na démissionné waat pour ñu reprendre ay élections ou bien reprendre ay élections pousse ko ay quelques mois ñu def ko ci jàmm salaam ku gagné ñu xam ne yaa gagné lan moo gën a sedd nit ñi Sénégal moom moo leen ñor ndax seen intérêt bopp ñoo xamante ne li leen ñor du lenn lu mooy ñëw nekk président de la république nga président yàlla moom moo koy tànn sénégalais yi nag ci ñoom la koy jàllale mu nekk dans deux mois dans six mois ki war a nekk président de la république waa askan bi ñoo ñoo koy tànn président ko xam xam ne nekkul kuy ngooy ci pouvoir maanaam saafande sunu sunu sunu sunu sunu sunu réew maanaam du jël sunu réew mi bay ko si condition yoo xamante ni du demee dañu naan lii yàqu nii nii président Macky xëy na xamoon na ko te defu si dara li si kanam nag raw li bët parce que nag ay enquête ñu ko fiy wax ay enquête parlementaire ñu ngi ko fiy wax ay juge yu ñu corrompu ñu ngi leen di wax ay candidat bu bokk te waru woon bokk candidat bu ñu jàpp ne mënoon na bokk te bokk loolu yëpp coordonnateur ñëw na si mais a leer te kan war a a leeral muy bi ñuy dem élection beneen bi am ñu def délégation dem si président ne ko président dañ bëgg nga leeral mbir bi parce que ñun ñii boroon nañ jàll président jël mesure ne léegi pour leeral bi mais lenn nii rek la waroon def leeral ko mooy reprendre processus bi ñoom loolu lañ demandé woon reprendre processus bi mooy repousser élection dañu ñaan yàlla nag élection yi am si jàmm ak salaam may lancé nag beneen appel boo xamante ne suñu mbokk APR ak Benno Bokk Yaakaar que ne bu ñu topp ñi nga xam ne dañoo bëgg a ñun benn lañu tey jii ñun benn lañu président Macky Sall mooy suñu responsable moom moo ñu tànnaloon ki ne diw moo nekk suñu candidat ñun si loolu la ñu tax ba ëllëg di xew coordonnateur nag da ngay nekk si structure boo xamante ne structure yu parti bi la ñun Macky Sall li mu wax loolu la ñu wax président Macky Sall dafa ñuul ñu ne ko kub du ne dafa weex ñu ne ko tal ci loolu la ñu nekk te moom na ku xam président Macky xam ko si wax kàddoom parce que li mu fi wax ni yëpp sàmm kàddu moom moo tax mu wax mais je voudrais juste lancer un message au Sénégalais moi ce que je crois fondamentalement c'est le président Macky Sall lui qui a dit qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles en a fait, fini dans ce pays-là. Mais il a été élu par les Sénégalais au suffrage universel direct. Par conséquent, il ne doit pas quitter le pays avec les débuts d'une crise institutionnelle. Il n'a pas ce droit. Le président Macky Sall, il a la responsabilité, ne serait-ce de donner les, les, les rênes de ce au président nouvellement élu, mais sous des conditions stable, exemplaire, comme l'a toujours été le Sénégal. Moi, je pense que notre adversaire n'est pas dans l'appel ou dans Bernard Bokyakar. Mais notre adversaire, c'est l'opposition en tant que telle. Eux qui, parmi eux, pas, ne sont pas prêts pour le moment pour aller aux élections. C'est ça aussi la réalité. Parce que dans le secret des discussions, dans le secret des salons, on sait pertinemment qu'il y a des gens qui ont passé le cap des parrainages, qui ont, qui ont fait valider leur candidature, mais en réalité qui ne sont pas prêts à aller aux élections. C'est ça la réalité. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du saupoudrage. Faire croire aux uns et aux autres qui sont prêts à aller aux élections qu'il y a le chaos dans ce pays-là. Tout se passe bien dans ce pays. Les gens le pays serait sens dessus, sens dessous hier à l'Assemblée nationale. Les gens ont vaqué à leurs occupations tranquillement. Aucun commerçant n'a fermé boutique. Aucun commerçant n'a fermé boutique. les gens sont en sécurité dans ce pays. Et ça, il faudrait le rappeler. Si les gens n'étaient pas en sécurité, on ne serait pas là ici en conférence de presse. Il faut être clair. Il faut que l'opposition sache raison, raison garder. Quand on est opposant, il y a des choses qu'on doit dépasser dans son pays. Un opposant doit être responsable. Un opposant ne doit pas appeler à la violence. un opposant responsable doit pouvoir retenir ses militants, leur dire, tenir un langage de vérité. C'est ça la réalité. La dernière chose que je voudrais dire, c'est de lancer un appel à notre parti, l'Alliance pour la République. Le président Macky Sall ne mérite pas un parti déchiré. Il ne mérite pas un parti déchiré. Je lance un appel à tous les camarades de l'Alliance pour la République. Nous ne sommes pas des ennemis, nous ne adversaires. ce sont les ennemis de la République. Ça, le dire. À l'APR, on n'a pas d'ennemi entre nous. Il doit pas y avoir en tout cas. Et nous, en tant que jeunesse, sous la coupole du coordinateur national Moussa Sow, notre mission, notre rôle, c'est de démarcher pour que les uns et les autres soient responsables et ensemble. C'est ça notre mission. On ne doit pas être ici en train de se crêper le chignon, en train de se chamailler. Nous avons plus important. Nous avons un seul dénominateur comme c'est le président Macky Sall. Tous ceux qui se tous ceux des responsabilités dans ce ils le doivent au président Macky Sall. C'est ça la réalité. Et je pense que ces gens-là doivent être fidèles au président Macky Tant qu'il n'y a pas quelqu'un en lieu et place, moi je pense que nous devons rester fidèles au président Macky Sall, parce que c'est ça la réalité. On ne peut pas avoir un leader charismatique, reconnu par tout le monde, reconnu partout en Afrique et dans le monde, et nous amuser avec ça. Et nous devons faire attention parce que nous, avons, euh, nous sommes dans un pays où tout ce qui nous sont, sont, sont, sont les pays qui nous entourent. Nous sommes tous les pays limitrophes, mais nous ne devons pas jouer avec le feu. Il faut conserver la stabilité de notre pays. La Côte d'Ivoire a fait 10 ans de guerre civile. Que Dieu nous en épargne. On a vu le Mali, on a vu la Guinée, on a vu le Burkina Faso, entre autres pays. Le Sénégal est un des rares, à avoir une, certaine stabilité et je pense qu'il ne faut pas s'amuser avec le feu.